mbokki daara ji ashaabu cheikh jàkkafaan bi ci bindu soxna Xadijatu Juuf ñu ci ci xarafu q i ci paasu ah 31 ci téer yu ndaw yi xam naa bu ñu yeboo de bàyyi boobu ndax bii moom amatul hmm. xarfu q i ci la ñuy dale bàyyi ne salaatu wa taslimun bi tiibin mu dammaqu yëumuka mi man daaruxul yowma kaw laqu salaatu na salaatu wa taslimun ak salaatu salaam boo xam ne bi tiibin mu dammaqun nga njëkk firi mu dammaqun dañ koo sotti riix bi tiibin salaam boo xam dañ jaa sotti parfum yëumuka dana jublu ma bii salaam fu mu bàyyi koo ak salaatu wasalaam mi men mi ngi bàyyi koo ci koo xam ne daaroo këram aliyom ma tey kawlaq mooy kawlaq tey fii la dëkkee a boo nag waaye tey moom mi ngi ci kawlaq kawlaq <laughs> fal dëkkee tey yàqu ya umuka yaa xayral bariyati isnaad diyaari waxaalat xanka taymaawu sarbaqu ya umu ko dana jublu la yaa xaril bariyati yow yaa xam ne yaa gën ci mbindeef yi wala way set yi is naa at ba soree diyaari sama kër ba nga xamante ni maa ngi fii kër ga sori la laa la envoyé salaatu ak salaam boobu waxaala diggale an ka caw taymaawu ay ali sori sori bokk yoo xam ne ay kilomètres yu bare jaar suñ diggante mm-hmm. maa la envoyé message boobu waskoro ardan masa jildi a turabaha wadabar huma yaha wasirto wareko waskuru maa ngi fàttali ko man Ibrahima Niass su soo xamante ni masalaal na jildi sama der bii turaba suusa sama xel ngay daw ca suusa nga xam sama der laal na ko wadabat duggoon duggoon na maanaam yukkoon na uma yaha tàngoor ba boo laalee dara na tàngoor bay duggee mu ne ba ma duggee ci suusa mooy ca tëddee toog ci sama der tàngoor dafa maa dugg wa surtout mujj naa óoriqu maa ngay taarixal bés bu ma amee loola maa ngi ko bind dat ba bi tii bi ayaamin bi jannati tay batin wa taskaaroo xindi alaso wa arsako bàyyi ban ban la mu ne bi tii bi ayaamin ci woy tey fan maanaam fan yu neex fan la bi jannati taybatin ca àjjanay tayba ja wa taskaaruha fàttali ko tayba ne di fan àlla su moo gën a neex lépp lu may am waar sax ko tey moo gën a sax lépp lu may bànneex ko allah yaa rasulallahi julli bi awdatin li sar en fatuhi fatuhi ni rawaa yu toj ma ko allah ne yaa rasulallahi yow ndaw law julli may ma bi awdati dil saat di salin ci su ko defee fatu yii ni dundal ma rawaayu ay xeeñ tën ma yoo xam ne dafay tuuru dafay tax dafay ah, bi maanaam li wax ah, dañ koy riixoo xëy yoo xam ne dafay taq may ma rek ma delal foofu ndax xëy sotte ko ci man illee karasollaay asko fa ina nii xaral nii su oonun masu un na moo ilayka jëm na ci yow wala bu la neex nga ne asko dinaa jàmbat ilayka ci yow rasulullah yow ndaw laaw la bu la neexee ne ilayka ci yow dong rasulullah yow ndaw laa yow ndaw laaw la asko jàmbat muy xasru yow rek laay jàmbatal li ma dal fay na ni naka man Ibrahima Ñas de ala nii gaar na ma su óonun ay problème ma suuna yoo xam ne laal gañ ma laal mu ari mu ariqun lu ñuy taarixal la bi maanaam ndax duñ ko fàtte bu ñu taarix rek mu ñu doon fàtte métit laal na ma yoo xamante ni du ma ko fàtte mm-hmm. ah, wa iniya astasqi li ardi wa artaji mm-hmm. bi aliyaaka yaasal kawsu maa huwa asmako mm-hmm. wa iniya man ibrahima ñes day astaqi tasqi maa ngi sàkkoo ñaan li ardi ñal sama suuf maa ngi sàkk nga naanal ko wartu ji maa nga yaakaar bi al sa kaw gi yaasal xaw soo yow mi nga nga ñaan nga may xam ne bu yëkkatiku la alayka salaatullaahi suma salaam woo bay na kamal jàll xalqi innaka yow rasulullaay mal jàll xalqi yaay wéerukaay binde fi inaka naka yow musrikun yaay leeral wala yaay xet li loko ko jox baax na xaale la suma salaam ho fatisruq min daw il madinati kaw la ko xaale ki yan ci salat la suma salaam ho salatu salaam boo xane bamako ba ma ko day leer leere day jox min daw il madinati ci leray madina madinatu kawla la soo ma defee salaat salaam leeri day jolli ca Madinatu Kawlax xaaleyka madal ayaami bat an wa maxtaman salaatu wa taslimun bi tiimin mu dambok xaaleyka yéen ak soo madal ayaami diiru fan yi bat an ci tàmbale wa maxtaman ci matli salaatun salaatu wa taslimun boo xam ne mu dambokul dañ koy tuur bi tiimin parfum bu neex amin ya ba tey ñu dem ci xarfu dër mm, ah kon bàyyi jeexal na a mu ngi dem ci deux lan la bàyyi wax mu ne baral qalba hubul hasimi muhammadin taqaw fa nami bil xaraamin musahadi bara yebna al qalba sama xol maanaam al yooyu foko fekke yaaw mu tekkali mo ma waroon dikk bu indi yàq yu ñu jël al al wecce ci koko waye buñ ko aw wecce al bay da koy lam la nga xalé mo ci cosaanu moy moo ilay moy qalbi sama xol lu ko yett xubul xaasim yi bëgg yonent bi ko ci gid bënn xaasim ma kooku kan la muhammadin xanaa kuy sant ka bëggoo ko bëgg day moo yett sama xol taxaw wa fa semmi na noonu mi sama nelaw jeexal na biir xaraam yi ndax mbëggeel al mursaad yi nga xamante ci dafay naawloo ay xel moo naawloo ay nelaw mooy foog maa ngi firi foog waaye xale xam nañu foog foog mooy nga tëdd ma la toog nelaw sa bët di xoole bët set ba ah waa kay yéen ko xam loolu ci tubaab taqawafa baat la boo xamante ni baat bu naqari fii ci arab la ba naa Omar sax toog na xamul lam nekk-nekk arab xamuloon lam tekki ah ba benn bis nag maanaam muy xutba aw yaqusuhum ala taqawufin yàlla na su ma neexee ma jàpp ña may jàpp ci jàppinu taqawuf te taqawuf du du firi ragal nit ñee ko firi ragal ragal te du ragal luy taqawuf mooy jàppinu semmi xam nga kuréel lool ñu lay ngay jeex di jeex jeex ba amato ba reetoo walima wala xalima gu ñu doon bindee ñu koy bindee ba xaliga desetul daal wala matériel gu ñu doon liggéey ba mu jeex ba sew mm-hmm. loolu mooy semmi moo tax ba mu pare mu ne ba mu ci agsee moom Seydina Omar mu ne ayyuha naas man ale min ku mu taxaw waa ku xam lu baax taxaw lu mooy firi ndaxte gis nga ni nga gisee fi ne waxi saalum saalum ak waxi bawol ak waxi kajoor ak waxi jolof ak waxi waa ndar ak waxi waa ndakaar ci waa ci ñoom yëpp ay wolof lañ waaye mën nañu indi baat yoo xam ne ko diggoo loolu dafa am ci arab nag mu ne ayyuha naas man ale min ku mu taxaw mbokk yi ci kaw min barbale seetal koo xam ne ci yaay ay amiru mu ngi rusulaa laaj loo xamul mu laaj ku ci xam luy ko lu mu tekki benn koo xam ne muy wokk ci git ba ni Huseynu moo jóg ne ko ana yaa amirul mu'minin man xam naa ko mu ne ko nu mu demee mu ne ko xaala saa'iruna suñ gawlo ba daa nañ wóyal parce que am na yoo xam ne gis nga am na gawlo yi dañuy génne wax yoo xamante ni moo gën a xóot puisque ñoom ci wax la ñuy jëlee am seen am maam moo tax ñu ñaw ci nit ki lu may amee dal ci lay ñëw <laughs> dégg nga mu ne taqawa fa rihlu min naa taamikan aridan kama taqawa fa od nabti asubun mu ne ko nag aleykum bi soxla jaay li taqawa fa semmi na arihlu min naa taamikan aridan suñ dege ñu gëlëm yoo xam ne dafa yëkkati nii teg nañ ca tegga de ko war de ko war muy semmi ko ba jeex kama taqawa fa od comme bant ga banaa bant bi ñuy jawee ci gaal gi boo koy jaw ni xam nga day riis ci gaal gi muy leet nga jaw fi jaw fi mu ne baat gaal googu na gaal ngay leetalee bant ba suñ tukki bu yàgg bi semmi na gat semmi na gi ñu gërëm ki ah noonu kon nag gaa yi dem na soo soxoraal jaay waaye tey nag xale yi soxoraaw jaay yi nag xale boo gis ñu jàng ko fi tey maqaamatu ardi dinaa la dinaa la yónni sax waaye waaye déggul arab waaye su bëggee déggul arab ma yónni ko benn benn ab ñu ma yónni benn benn waxkat boo xamante ne tey benn arab ci bu ko def ci Grosso Asaniya mm-hmm. masuma gis ku digg arab noonu ab soudaani la mm-hmm. ah léegi kon nag léegi buñ bëggee dégg arab pire te jànguñ arab yi nga xam mooy arab pire te alxuraan man dafa rikk ci luxatul arab fusaa mm-hmm. nuñ koy déggee kon nag taxaw fa jeexal na semmi na naw mi biir xaraami almusaad bi nga xamante ni mbëggeel ko xanday naawul ay nelaw moo semmi sama nelaw yi da ko jeexal da ko jeexal ba amatu nelaw ñu ne ko waa bàyyi kooku mooy kan mu ne rasulu min al kansil qadimi manaaluhu taayara fihi qaatirul mutaraddidi rasulu ndaw la boo xam ne manaaluhu ay mayam ya minal kën si ma ngi bàyyi ko ca denceekaay ba alqadim këntul qadim xaqiqa ba këntul qadim falaa jëlee këntul qadim mooy lan muhammad yëpp nga xam ne mooy muhammad yëpp muhammad falaa jëlee may mi ndax kii moom mooy rasulallaahi bi ma ngay jële ca rasul xaq ba lay jëlee ca numéro un ba falaa jëlee ah taxa yara gëlëm na fii ci moom xaatirul mu dërëdi di xaatirab kuy xalaat yonent bii rasulaay bii soo koy xalaat da xalaat ba mu yàgg sa xel eh, man daal ki xam mooy kan wax na dëgg de kii xel man wër ba xam kii mooy kan ah xubóodatuhoo maqronatun bi siyaadatin basirun nasirun xaasirun xayru muxsarin xubóodatuhoo xubóodam ba xam nga nit ñi dañ war xam xàmmee lu ne la koy maye ak fañ koy maye mm-hmm. ah, siyaadatu mooy càng xibaadatun mm-hmm. dafa am ku bëgg àjjana moom ibaatu moo koy maye xuboo xuboo mm-hmm. moom boo bëggee ngërmaane moo koy maye xuboo dëtu nag boo bëggee ak càng fi nga ko jëli si <laughs> nga ni de kon boo bëggee ajjana wa te mooy mahbub boo nekkee boo bëgg a nekk habib mm-hmm. ah nekkal ci am sarixa mm-hmm. boo bëgg am ngërmaande mm-hmm. xamal lu tarixa tax a jox la nga nekk ci soo bëgg a nekk la nga xamante ni mooy oh, mooy nga bëgg a am nag ak jàng demal ca fay nam tëddee nga tëddee ko kon nag loolu mooy ibadatu ak ubóodiyatu ak ubóodatu bale ci nabi nga ko jële bale ci wilaaya bale ci xilaaf ah boo demee nag misir me ubodatu abdu zaati aynu ziyaadati jëmmi càng dëgg dëgg dëgg da ngay doo xam nga ñun dañuy dégg dañuy dégg woyu misir woyu bàyyi ñu dem rek jël ne xam nañ fiq déedéet te da koy da ngay dem pratiquer ko ba doon ko soo ko doon soo taxaw taxawaayu uba da ngay taxaw taxawaayu abdu taxaw taxawaayu ubodatu taxaw taxawaayu ubba da nga huboo diitu kon taxaw taxawaayu ubba dëtu soo ko taxawee dégg ko noonu rek mu dem du am benn njëriñ te nag loolu nit ñi dañ fa ne sëriñ bi moo ko war a mel yow waroo mel yow lépp loo xamante ni fa ulaayka ma allazina anamala nit ñi dañu jël ba fi may wax ak yow taale bi dañ fa war a nekk fële ah ca sori ba sëriñ ba nekk ca kaw a kaw a kaw déedéet sëriñ boo xam ne mënu laa may lam am la bul ko topp bu la jombalee lim fa taxaw mu nekk de nga maam de xutbu ngay xutbu muy wëliyu ngay wëliyu su dee ko jombale baal mu def jor ngay topp de ay kuy koy su may apprenti wu euh, oto du dama bëgg a mën a conduire ah waaw léegi nag ñun dañoo apprenti wu te duñ wàcc moo fi nekk de man de oustaz gi du ma ko def du ma apprenti wu koo xam ne doo ma jox permis de <laughs> waaye taalibe yi dañoo xamul li xew nag xuboo datu xuboo daamba te mooy foo ko digg rek mooy abdu zaati abdu sifati mm-hmm. mooy bale mm-hmm. ca nabi ba ismi mooy bale ca wilaaya ba mm-hmm. abdu zaati mooy bii nga xamante ci xilaafa bi yow nag dangay nekk ab boo dee abdu sifati da dem ba borom sifa ba borom melawa na mooy dawalee yëfam ca melawa du ca bañ dara nga dem ba mel noonu booba nga nekk abdu sifati xaddul ismi da ngay dikk na mooy dawalee moom borom tur wi ca turam te tur du ci respecté du ci euh, wax dara nga dikk ba dox noonu ba nga dikkee ci xaddu saat na nga xamante ni saatu xam nga léegi sa jëmm ji lu mbañ bañul dara bañul lépp luñ ko xen muy ay nopp ak muy bët ak muy puub ak muy deret ak muy lu xasaw yu bon yëpp lu neex bëgg nga lu bon bëgg bañ nga ci dara loolu nag nit taxawaayam boobu mooy ak mooy ubboodatu sax léegi nag loolu jàngeekaay la nan la ñuy doonee ubboodi yëtu mm. ubboodatu kon ubboodatu ubboodatu ubboodatu ubboodatu ubboodaam ba maakuroon dañ ko dañ ko lëkkale bi siyaat ak càng xam nga nag li ci gën a doy waar nit ñi dañuy séddale yàlla day foog ne ibaada dafa nekk fële ubboodi yëpp nekk fële mm. ubboodatu nekk fii ku taxaw ci pays charia yow te nga xam ne yaay yaay jaam ak bi dëgg-dëgg booba yaay abdu bi yaay ubooda bi uboodiyatu bi yaay ubooda bi boo dikkee ci wilaaya bi ba tey noonu nga koy nekkee kenn fi nekk rek moom mooy nekk am nag naka tey diina bi mu taxawee islaam iman insaan yow nag loolu kon dañ la wan yoonu jaar wa léegi nag boo dikkee itam nag fii boobu dikkee dangay taxaw taxawaay bële nga nekk ne koo xamante ni ah dikk nag abdu nekk ubboodatu bi nekk nekk nekk ubboodiyatu bi nekk ubboodatu bi fu ñu ne ubboodiyatu rek mooy wilaaya ba fu ñu ne ubboodatu rek mooy kalaam mooy kon nag kii mooy jaam kii mooy jaamu melo kii mooy jaamu tur yi kii mooy kon nag dañ dikki mu séddale ko mu mel ne kenn ko dafa jël sa cër bopp déedéet ndax yaay patron ëtt bii ëtt bi nag boo fi nekkee patron ñëpp dañ yaa yaa nekk seen patron ah kon lii la nekkee nit ñi dañu fa ne dafa nekk fa déedéet bi lii taxaw ñu ne ko mooy yàlla lii taxaw ñu ne ko mooy yonent bi lii taxaw ñu ne ko mooy wilaay bi lii taxaw ñu ne ko xilaaf lu amul kenn fi nekk ci kenn nam nga njaamu gi nga ko ñoo jaamu ko kenn ka ko jaamu ko kenn kala moo tax nag léegi xam nag benn jaam moo fi am kenn ku ñoo jaamu ah? moo fi nekk kenn benn jaam ak benn ku ñoo jaamu moo fi nekk na moo tax ah boo demee ci misir yi na koy li nga koy leerle ci kii boobu nag ah kon nag kii day basirun béglekat la naasi nasirun waaraatakat la xaasidun ku juba ngi nii xayru maqsadi moo gën ci ku ñu jublu lépp moo ko def moom kenn ki masalatul isul qadimu jalaaluhu jamaalun fa yeddoo bil jamaalil mujaddadi masalatuhu toroxlu ko nga ñëw di toroxlu ci moom ali sutura nga lay jur jëmm la yoo xam ne boo koy toroxlu torox torox ga lam lay tekkil inal xasanaat yusim na toroxlu ga day tekki euh, euh, mbaax masalatuhoo alisu qadim mbaax dafa jiitu jalaaluhoo dafa lay dafa lay yëkkati mm-hmm. ah, gis nga mbay mii ah bañ ko defee cër suusa ah mu génn ngay toroxlu ci mbay mi xam nga baykat day toroxlu dikkate nga am tawte yëree takk suuf tilim lool ma ngay toroxlu géej ma ngay toroxlu suuf ah, di nga li nga xamante ni mooy mbay ma waaye gis nga toroxlu googa mooy tax mbay màgg màgg màgg ba meññi ñor jural ko loo xamante ni jeexalu dara kon nag toroxlu ko ci ràngale jur moom la nekk de ah jàppoon nag jalaloo jamaanu la jalalam mooy mixtam nga xéwal la jur fa yëpp doo kon dafay feeñ kon nag bil jamaali ci taar al mu jëb yoo xamante ni taar bokkan day bees rek ah faqirun xaniyun hamidun wa muhammadun jawaadun karimun matoo xayru mun sadi la ilaha illallah Fakirun fakir, la xam nga am fakir bu mag ak faqir bu ndaw mooy koo xam ne xam nga li nga am doy nga soxlaxaat leneen moom nag faqir la ci kanam kenn koo gis sa patron faqir nga ci am bëgg a dolli xaniin amul soxla ci dara ndax liñ ko may ku ko am do amati soxla ci dara hamidun santkat la sant kan mooy koo xam ne lu ñu la def neex na la woo Muhammadun kuy sant la ndaxte ki nga xam ne moo koy sant liggéey liggéey liggéey liggéeyloo gërëm na ko bëgg na ko ndaxte kuñ sant la ndax lu ñu ko sant def na ko jawaadum ko tabe la lim am yëpp kër yi mun ko tedd la ko tagg na xayru mun sa di booy sadd ay wëy ñel jël ne ko di wëy ci kaw li ñuy woy ci kaw Eliya yooyu yëpp woy bi ci gën walay suira man daamu xoo daxaroo daari an madaadari illaa naa la xoo xayru mun jif walay suira de su gis man waay ko waa joo xam ne daamu xoo wàññi na ko adaru jamono gis koo xam ne jamono daf ko gotti an mu dikk toroxlu ci kanam madaadari mm-hmm. ku jamono dal sa kaw wàññin la nga dikk ci toroxlu ci kanam yéen doo gis illaa naa la xoolu may na ko xayru mun jët li gën ci li ñu am li boo toroxloo ba dikk ci moom dana la may may gën ci may waa sa qadimun qad ata mutakafifan ah, fam la fa am la la ko ka fay ka yaa xayri si ndigi ah léegi nag waxaa kii de woykat bi dañu ne ko Ibrahima Niass qadimun surga la de xat ataa dikk naa mu takkafifan mu tàll ay tënk keneen këfu mooy firi tënk bu ñu ne takkafafa tàllal na ay tënk maanaam yalwaan si na kii day ab liggéeykat la dikk na tàllal ay tënkam moom fa am la na nga duy loolu ne kafay ka jëlal sa ñaari tënk yi nga duy ko ba mu fees nga sat ko diggante ñaar ci ñaar tënkam yi yaa xayra sind di yaa xam ne yaa gën ci sang yi wakkun is na xoo xamaa yaqaafoo wakkun la xoo faal wasarun yulqaa ka ahmada sayidi boo mm-hmm. nekkal nga la waaye xis na woo de tataay ibrahima ñes mm-hmm. tata mooy la wër ba xam ne dara mun laa laal mm-hmm. xamaa yàqaafu lépp loo xam ne mi ko ragal ak ñun itam woo ko nekkal na woo ñeel ko ak ñun nekkal ko de tataam faal wasaru ndax am na ndëgër laay boo xam ne yulqaa dañ dajeek moom ka ahmad ku mel ne ka ahmad sayidi ndëgër laay ni ñu dëgërloo comme ci mel ne ama ndax am na déedéet ahmad mooy dëggal laylu alayka salaatu rabbihi xaqa qadrihi maal ali wal ashaabi bal kulli ahmada xaali yal nekk soom salaatu rabbi yi julli rabbam xaq qadri dëgg dëgg diwom ba maal ali ànd jigéen ñaale ba wal ashaabi ànd ak ànd ba bal kulli ahmad lépp luy ahmad yaa rek yal na salaatu salaam nekk ci moom ah lu ci tëgee xanaa leel xaajil xubbi wa huwa mubarisun bi àndil mu jàlla fi mahabbati ahmadi wala wax na dëgg xaat daa dogal na li ñel ma xaadiw bi ki nga xam ne mooy dogal de seet ñi gën a ëpp mbëggeel mooy li nga xamante ni mooy arbitre bi arbi arbitre bi atte ne ñi gën a bëgg yonent moom moo dogal waxoo fekk nag xaadi bi mu bëri sun ñëpp bi maanaam tribunal nga xam ne mooy ba nga xam ne kuñ fa attee amatoo foo jëmati moom moo dogal lan la dogal bàyyi bi am nii ni man Ibrahima almujalla maay numéro un maa raw fi maa bati amat ñu ne Ibrahima Niass mbooro ci mboolo ñu bëgg amat te mooy dëgg de ku ko weddi indil sa téere ba nga woy ñu indi suñu téere bi rek ñu seet ah moo tax nag kii nag boo boo bëgg jël jël nga jaay la xam nga nit ñi nag nangu nañ nga jaay li léegi ah ba ne seen seen ñoo ko yore waaye kii moo nekk mu jël lii ah boo dikkoon ne may moo sëli sax may deuxième sax waaye de ñoom dañ ko jël léegi ñoo ko moom ah maay numéro un de li saalika axde firgu joodi bi asri xada sayul am laa ki xayra xayra euh, mu fann bi may guley gii may yore man Ibrahima Niass loolu tax àq ni maay attee firgu joodi bi asri tout may dogal man maa yore dogal bi nga xamante ni mooy tourné ci mbindi fi ah, ndax ba képp koo xamante ni ñoom lañ dénk maa xaama kon fekkul tey nag maa yore dogal bi maa ngi at xadaasiril amlaaki kem atte borom nguur yi xay mu fële ci kenn du ma wax ne dangay ngay fen waxoo dëkk ah koo xam ne da ngaa xamul da ngaa xamul waaye kenn moo fen loolu ah falal sabatal moxtadina wa taalama waxadilu asxaanan li idraki maqtad falal dama naa man Ibrahima Ñas sabatal moxtadina ñaw kaab tooñkat yi tooñkat yi damm naa seen dëkk <laughs> te loolu de wér na de wataalamaa uhadit yàgg naa daggi xaddada ci lañ jëlee xaddaat ji firi tëkk moo tax li may wax ne bàyyi ñes boo santoon ñes sax man du ko gëm wataalamaa uhadit yàgg naa daggi asxaana ay xel moom tàgg dagg dañ ko ñuul de ay xel yoo xam ne dañoo tëmaxoon ñëw lay dagg ba ñëw yàgg naa daggi asxaana ay xel lu tax ma dàgg leen li idraaki maqsadi pour ñu mën a jot li ñu tax a jóg fa xam kam boo xamante mooy tax a jóg borom xam-xam yi ak borom xel yi danaa dàggi xel moo xam ne xamu doon dara bu dem jot fi nga xamante ni mooy moo ñu tax a jóg lii dong moo ma tax a jóg moo tax mu ne nag man maa ngi wër rek soo suma wër yëpp maa ngi wut borom xel lay wut wa faraxtu jam an lil abatiri jaami an li axtaati aswaaqin bi qalbin muabbadi wa farraqtu tasaare naa jam xan mbooloo moo xam ne jaami dañoo dajoo lil abatiri ci caaxaan mboolooy groupe dajaloon yëpp pour ci caaxaan tas naa mboolee man Ibrahima Niass ñu ne ko noo ko defee mu ne li as taati aswaaqin ci way tasaare tasaaroo ba gën boo xam ne bi xalbin mu ngi nekk xol mu abadi boo xam ne bi xal mu abadi bu ñu def jaam xol bi nga xam dafa nekk xolab jaam ba dajale li nga xam ne moo doon bëgg yëpp ci mbëggee laa sukkandikoo tasaare yi nga xamante mooy yi. بيب رسول الله تعالى محمد حبيب إلى العالمين مبجد ما نكون فينا بيب رسول الله تبقى نوالا كان من لا تعطى محمد محمد حبيب إلى العالمين كخلما يصفي إلى العالمين المبجد كخلما كنتر الكلام bëgg nga ma ko bëgg moom mooy ma am maqaama ndaxte mahabatu rasulullahi maa ngi dem ba am ci maqaama tasaruf xam nga nit ñi def ne kun fayekun da ngay fa ne benn mbóot boo xam ne mooy sukkar muy kun fekkul amul maa ba trop sol ngay dem ba nga xamante ni ah, euh, maa ba rek booy bëgg rek la ngay bëgg daal di am ba foofu boo fa àggee tey gis nga nit yàlla yi dañuy àgg foo xamante ni am na maamu Cheikh Tidiane boo xam ne radiyallaahu anhu bu daan dem ci jàkka ja day muuru ñu ne xool Cheikh lu tax yow sa maam ji buy dem nangu xool kenn nangu ci dara mu ne ko dafa bokk ci borom maqaam yi nga xamante ni lu seen bët tegee bu ko bëggee rek da ko yàlla da ko jox ko waaw <laughs> ba tax na ah ñooñu gannaaw nekk golo nag ci ker Cheikh Tidiane yi mhm. boo nekkee ci ker Tidiane ron Tidiane yi bi nag mhm. mën na laa baare ba ba léegi si dootoo yàq dootoo yàqati waaw <laughs> loolu taxte maqaama wilaaya boo xamante ni borom àggagul ci mën a régler ndaxte moom dañ koy diri si ni mu bëggee rek ni ni borom bi bëggee rek ah moo tax kon nag loolu bu njëkkoon amoon de ah kon nag xabibun ki may wax day soppe la de xabibun xalilun ah, tama ma anan wa sooratan woosfan wa saatan xayru ma waa wa marsadi kii de xabibun soppe la waaw xalilun xalil la xam nga ibrahima bu ñu ko tuddee xalil kii moom dafa boolante ñaari fas fas yi soppe la xalil la tamaman na maanaan ci maanaa woo soor ak si foto bi luy mat ci maanaa maanaa fu ñu ko waxee rek mooy li ànd ak yow te ñàkkoo ko te bu fi amuloon do am te mënoo ko laal mënoo ko mën a wax ne bu ko borom mu jël muy sa siru bi soro bi sa xel ak sa xel bi loolu moom mooy maanaa moom mën na ay maanam yaatam yëpp dañoo mat koo gis bi te manqué bii dama njëkk a manqué cëri biir yi bu ñëw buñ paralysé cëri biti dañuy paralysé kon nag kii moom dafa man ma anan woo sorat ak photo bi góor yëpp moo ci gën a mat wa wasan melox jikko moo ci gën a mat wasaatan jëmm moo ci gën a mat xayru ma waa moo gën ci làkkokaay wa ma sadit ak koo xam ne ñu ngi koy xaar kee ci gën takaamala fiil usnu xayban wa ma sadan fa sa kataal mustafa inda ma sadit takkaamala mottali wante na tëgg ak tafaala fii coom alxusutaar rafet rafet rafet gën a rafetaat rafet gën a rafetaat mooy takkaamal dafa mat alxusu xay ban ci biir wa ma sën ak ci biti jikko yi nga xam ne mooy xuluqu dañoo rafet ñu dikk ci opar ci xalqu bi xam nga ñaari taar yooyu boo ko bolantee da nga gis koo xam ne ñaaw lool ah fekk ma nga rafet ci biir moom nga dégg mbëri naa ñaaw ngemb rafet bëre xam nga da nga gis mbir moo xam ne moo fi dàq ngemb waaye mënut a bëre nga gis mbër moo xam ne moom ah ngemb lu ñaaw la waaye boo soog rek mu dem sa kaw <laughs> ah waaye nag nga boole nag rafet rafet ngemb rafet bëre ñaari bokk walante nag ci la gën a neexee nag kon nag moom takkaam fi fi la fii lu usno xëy ba mu mastara fan lay sa amul kattaa ku mel ne kattaa al Mustafa ku mel ne moom ci jano nga jëla jàkk ku ci mel na moom amul ku mel na moom mukk ci jàkko wa asna alayhi rabbuna bi kalamihi wa ayabale kon doona ko yëdda mos na wa asna tagg na ali ci moom rabbo borom rabbuna suñu borom bi kalamihi ca kàddoom nga la ko taggee innaka la ala xuluqin yi loolu la ko yàlla taggee moom ah kon nag fa aya lot na ba léekun koo xam ne naa wax doona ko yës na ko yëdda mos na di diiru jamono bi maanaam bu ne yëddu mus na lu nit mën a wax ba day tukki tukki man laa tagg ki ndax lami yu gën a kaw mooy làmmiñ yàlla moo ko tagg ah wa yëg fii matxan saatuhoo wa sifaatuhoo muhammadu fi lul hamdi min hamdi ahmada wa yëg fii doy na ko sëkk mata tagg kay saatuhoo jëmmam ji wa sifaatuhoo ak melam jëmam ji ak melam wax boo ko xoolee rek doy na ko tagg muhammadun kuñ sant ki fii lu andi jëfi cant la dafa jëfa jëfa jëf ba ñu ne ko kuñ sant ki fu ko min xam di ahmada ci xam doog ahmad ga lii fa la jëlee kon nag moo tax kon nag hmm. ah buñ ne kuñ sant ki rek doon sëkk hmm. alay wa a da nga wa ali sirqi ahla salaati kasaman baraahu sawko nahwa muhammadin xaale yan lekk soom wa ali sirqi añ yaa xam ne ñooy njaboot gu dëggu ga hmm. ala salaati la gën a gaay julleem tasa naka man waa ji nga ne balaa wetu asooku mooy Ibrahima Niass mi mooy itam naxwa amat ci côté amat moom itam kon euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.